أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور ونشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خاص سهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ثم الصلاة والسلام على نبيه القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala toll ci suura al an'am tey ñuy jël ñetti aaya aaya 88 89 90 ñetti aaya yooyu nekk sunu kanam sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi ñu ci jàngal juróomi mbir juróomi mbir yooyu ba ca njëkk mooy ashirk muxbitun lil amal ka ridda wal iyaazu billahi taala sunu borom mu ngi ñuy jàngal bàkkaar bu rëy bu garaaw bii di bokkaale garaaw gi mu garaaw ba dem ba tolloog génn ci lislaam murtad yalañ ci yàlla musal kon bokkaale garaaw na garaaw goo xam ne ki ko def ni mu yàqee jëf moom bokkaale noon la génn ci islaam di yàqee jëf ñaari bàkkaar la yoo xam ne dañoo garaaw dañoo dangereux moo tax yàlla di ñu ko moytandikuloo ndax doomu aadama day yendoo jëf suba ba ngoon dugg ci xeetu jaami yàlla yi dara desul tëdd dong dese ko mu bokkaale jëf yëpp daal di yàqu la mu yandi woon def yëpp yàqu chaque jour ñu misaal ko gis ngeen bokkaale garaaw na garaaw goo xam ne suñ ko doon misaal gis nga tey bu ñu la joxoon pot ndaalu soow yaa ngi ni woor ñu bàyyi ba ndogu jot ñu jox la pot ndaal bu sedd guyi ak soow boo xam ne soow mi ki koy defar defar na ci lépp waaye dara desul nga koy naan rek am ku ci toqal benn toq deret mbokk jullit yi benn toq deret ak benn pot ndaalu soow lan moo ëpp dégguma dara de pot ndaalu soow mi ëpp waaw ndax kenn ci bu ñu ko joxoon loolu dina ko ndogoo lu tax ah pourtant kon benn toq deret rek lañ ci def te lii soow mi moo ëpp lu tax naanoo ko ah yàqu na noonu la bokkaale mel wala bu fekkee misaal boobu dafa diis ñu jël bu gën a jege léeg-léeg nga gis benn waay bu yendu àll nekk ci liggéey fa mu nekk amul ko ko toggal añ amul gisul restaurant bu mu dugg lekk mu daal di jënd gerte gerte caaf jënd ci mbiru njëgu mbiru lu tolloo ñeent fukki dërëm wala ñaar fukki dërëm commencé takkar ñi laxa ñi di boxoñ boxoñ ba loxoy loxoy fees mu daal di sànni ci gémmiñ gi waa jooju ak xiifa ak xiifaayam ak bëgg lekkam gémmiñ googu mu sol ba mu fees gerte mu jékki-jékki daal ci dugal benn bu nëb ndax day wan gerte gi wala da koy yàbbi ah lu tax mu koy yàbbi benn bu nëb bi yàq na la feesoon dell ci gémmiñ gi da koy yàbbi bokkaale noonu la mel moo tax baaxul yàlla xamal ñu ne bokkaale day yàq jëf da koy màbb su lu mu ko mun a fekk ci lu mu kawe kawe kawe da koy màbb mu daal di daanu kon looloo tax ñu war a góorgóorlu mbokki jullit yi ñu xam lan mooy bokkaale waaye ñu sori ko gis ngeen bokkaale bokk na ci bàkkaar yi nga xam ne day génne nit ci lislaam te tey xam ngeen ne ci jamono bii nu nekk néew na néew na néew na fuñ dul bokkaale néew na de ci jamono bii nu nekk nii ci gox yi nekk ci biir dëkk bii nu nekk néew na nga xëy suba ma ngoon déggoo bokkaale néew na saa yoo xëyee di nga dégg wax joo xam ne bu ci wencagee dee ñu jëme ko ci diine wala ñu jëme ko ci yàlla wala ñu jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb am na benn baay bu ma envoyé benn vidéo mooy ki daan def toj toj yi rek te ñu naan moo remplacé waa jooju nag bi reyoon waaw ki doon wax yàlla la wala xaw ma day wane yàlla te nag bi reyoon ko ñu ngi ma ki ko remplacé ñu ngi ma envoyé benn vidéo am mu naan julli amul njëriñ di wax wax yoo xam ne subhanallah nañ leen sax ci laa ilaha illallah rek julli amul njëriñ amul benn njëriñ ay woor yi amul benn njëriñ ku dégg maanaa laa ilaha illallah kooku du werante ci julli ku dégg maanaa laa ilaha illallah kooku du werante ci koor waaye nit ñi dañ leen a réeral ba nga xam ne xoolal nit bëgg a wax ne man ci laa ilaha illallah rek laa yem leneen sama yoon nekku ci naa jàpp ci laa ilaha illallah rek laa ilaha illallah moo la sant nga julli fekkee dégg nga ko laa ilaha illallah moo la digal koor laa ilaha illallah moo la digal bépp jaamu yàlla bu ab jullit di def kon soo déggoon maanaa laa ilaha illallah kon doo nekk di werante ci jaamu yàlla yi bay naan julli amul njëriñ loolu tey ku xamul dara ku jàngul ku nar a alko ku nar a sànk bu déggee loolu ba waa gaa yooyu këf ko mooy àddunaam yàqu na àllaaxiraam yàqu na ndax ku dul julli moom boo dee rek safara nga jëm gaa yi diina ji di islaam yàlla moo ko wàcce ci kan la ko wàcce ci kan la ko yàlla wàcce ndax jàpp ngeen ni am na ku gën a dégg yonent yàlla muhammad laa ilaha illallah ah waaw kon kay dëgg-dëgg imagineel yàlla yónni yonent bi yonent bi ñëw jàngale ne mbir mi nii la waa ji nee na charia amul njëriñ ndax charia moo yàq adduna bi wala wax ne nee na charia amul benn njëriñ ndax charia moo yàq adduna bi aka neexoon rek ñiy wax loolu kenn ku nekk nga ñeme leeral li nga li nga nëbb nga ne man duma jullit gëmuma yàlla gëmuma yonent aka neexoon waaye maala saf dañuy nëbbatu ci ginnaaw diine di yàq ni franc-maçon yi di def ni franc-maçon yi di def ngemb ay nit ah ngemb nit ñi dugal leen ci diine ne leen yàq leen ñuy yàq jullit moom dana ko doy rek mu xam ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam diine ji ci moom la wàccoon moo ko doon jàngale kon su fekkoon julli amul njëriñ du wax julli leen yàlla dinañ julli leen su fekkoon kon koor amul njëriñ yàlla dinañ ne woor leen su fekkoon ne sharia amul njëriñ kon duñ ci tënk waaye yooyu ay wax la yoo xam ne tey ay doomu aadama yu bare bari ci biir jullit yi ci rawatina ci réew mi ñu nekk ñoo ngi nëbb kufru yoo xam ne kéeféer gu ñuul kukk lañ nëbb ci seen xol yi ñemewuñ koo génne nag waaye dañuy nëbbatu ci ginnaaw diine di génne ndànk-ndànk waaw soo demee tey ci dëkk yi nga xam ne fa la sëriñ su mag si nekkoon da nga fa fekk ay nit yoo xam ne la ñu gëm ak la sëñ ba gëmoon du benn te ñooñu tey dañoo bari bari lool bari lool bari lool bari lool moo tax chaque jour nga gis tarixa bu bees bu juddu chaque jour nga dégg wootekat bu bees buy woote. kon nañu xam ne bokkaale day yàq jëf kar ridda mu ngi mel ne murtad lan mooy murtad murtad mooy lan mooy génn ci lislaam jàpp ba pare war a julli ne man génn naa ci lislaam julleetuma bàyyi naa julli koor jot nga ni man wooruma lu tax wooroo moo ma neex wooruma ndax gëmuma koor loolu mooy murtad mooy génn ci lislaam loolu nag xam ngeen ku ko def lan mooy atteem waaw dañ lay rey ci lislaam dañ lay rey ñaareel mooy fadlul kitaab alkarim wa sunna annabawiya war nañu jàng tey mu leer ci sunu bopp bu baax ngëneel yàlla def ci téere bii di alquranul karim gis nga téere bii ku ci jàpp doo réer mukk taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi jeex na wallahi ku sànk yow la neex bàyyi naa fi sama ginnaaw man yonent loo xam ne ku ci jàpp doo sànku nii la ko yonent bi waxee taraktu fiikum bàyyi naa ci yéen maa in tamassaktum feeg yéeneen ci jàpp lan tadillu baadi du ngeen sànku sama ginnaaw lan la wax lan lan tadillu baadi ñu ne ko loolooy lan mu ne kitaab allah téere yàlla bi ak lan ak sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam li koy leer na kon ku sànku rek ku réer rek yow la beneen mooy téere bi moom la ñu yàlla wàcceel pour ñu war ñu war koo dund kon naxaatekat yi caaxaankat yi li ñuy wax yow pour nga rëcc ci pour nga mucc ci foo koy foo koy nattee bàyyil benn waay na yenn doo wax na wax lu ko neex su ngoon jotee nga jël waxam yépp nga peese ko ak téere yàlla bi kenn warul julli benn waay ne la kenn warul julli di la ci indil ay dalil kenn warul julli julli amul njëriñ julli nangam ak nangam julli nangam nangam nga bàyyi ko ba mu pare rek nga ubbi ay yi nga xool yow lan la la yàlla sant jeex na nga bàyyi ba mu pare nga xool yow yonent bi lan la la wax ci loolu mu doon wax su fekkoon ne ñu ngi def noonu ku wax ba pare rek ñu ne la qul haatu burhanakum ku wax ba pare rek ñu ne la indil sa dalil ku wax ba pare rek ñu ne la indil say lay lii nga wax fan nga ko teg kon julli di duñu réer kon julli ñi duñu sànku kon julli ñi tey nii ñu mel duñ ko mel kenn du leen mën a jàdduloo ndax téere bi yonent bi nee na moo leen di xabaar la leen fi jiitu woon moo ñuy wax liñ fi fekk mooy atte sunu diggante yonent bi téere bi téere bi yonent bi nee na man tarakahu min jabbaarin qasamahu llah képp ku bàyyi téere bi ndax benn bandi yàlla fayu sa kaw soo déggalee nit ba nga bàyyi téere yàlla bi yàlla fayu sa kaw fihi naba'u ma ma ba'dakum ma qablakum moo leen di xabaar ñi fi jiitu woon démb luñ fi nekke woon ña ci lankaloon yàlla fu yàlla jaar ak ñoom mooy fuddu leen fan la ñu jànge xabaru ma qablakum yàlla moo leen yonent bi nee na téere bi moo leen di xabaar histoire yeneen ñeneen fi jiituwoon ñoom aadama nuux ibrahim muusa seeni histoire ak ñoom firawna ñoom namruud kàccoor yu bon yooyu yonent yu baax yeeg ak kàccoor yi mbokk yi seen histoire kan moo ñu ko nettali fan lañ ko jëlee quran moo ñu ko leeralal ba mu leer naññ naññ naññ kon ay ngëneel yu rëy moo nekk ci téere bi téere baa ngi ni wàcc ci weeru koor shahru ramadan allazi unzila fihi téere baa ngi wàcc ci weeru koor téere baa ngi wàcc ci ngën gi weer muy ban weer ah weeru koor téere baa ngi wàcc ci ngën gi guddi muy guddik leylatul qadr téere baa ngi wàcc ci ngën gi dëkk muy muy téere baa ngi wàcc ci ngën gi xeet muy ah jeex na kon téere bi ku ci jàpp rek rëcc ku ko bàyyi rek sànq tubaab bi bu ñu defaree appareil bu mu mën a doon oto la machine la portable la day am ci biir benn kayit bu tudd ah notice wala catalogue luñ koy doyee lan koy doyee daf lay wax ne yow mi xamoo lampe bii nga jënd defal naa la ci benn kayit nuñ koy taalee nuñ koy branché wala yenn saa yi sax mu wax la volta voltage bi 210 la wala 220 la wala bis bu ñu la joxee boo xam ne 200 la nga dem def ci 400 nu muy def di exploser moo tax amoo droit utiliser lampe bi te liiroo notice bi ba nga xam appareil bi voltage bi muy jël loolu mooy alxuraan yàlla bi ñu bindee alxuraan la ñu wàcceel mooy suñu notice pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk rek nañu utiliser notice boobu pour ñu xam nu ñuy dundee nañu utiliser notice bi jeex na tàkk beneen mooy alxuraan risaala message la bu ñu yàlla bind tey kenn ku nekk ci ñun jàng tubaab jàngoo jàng anglais jàngoo jàng allemand jàngoo jàng arab jàngoo nga jékki-jékki ñu daal lay envoyé benn lettre lettre bi anglais la sa adresse ak sa lépp nekk ci nooy def lettre bi yow mënoo koo lire nooy def da ngay dem nga uti ku la ko jàngal bu dee allemand la nag da ngay uti ku jàng allemand bu dee arab bu dee anglais léegi nag imaginer ndax nit danañ ko bind lettre lettre boobu mu daal di dem ci uude bi ne damaa bëgg nga defal ma ko téere ma tàkk ko fii mu ne ci ginnaaw ma ne ndax nit dañ ko bindi téere lettre xam ngeen uude kan moo xam fi uude nekkati loxoom uude uude ñooy defar lan dàll yi ok ndax kenn ji dañ ko bindi téere mu dem ci uude mu ne defal ma ko téere ma takk ko fi doo ko def lu tax loolu tax koo jóg ndax dinañ la bind lettre nga jël laa di jël lettre bi def ko ci benn pot def ci ndox jàmm ko ba mu ba mu ba mu kii nga ne waaw lettre bi day allemand la jóge Allemagne la jóge xaaral ma def ci ndox rek man naan ko dinaa dem dinaa dem léegi Allemagne nga jàmb ko nga jàmb ko ba lettre bi mokk rumbux nooy nga naan ko lu tax lettre bi Allemagne la jóge su ma ko naanee dinaa dem Allemagne ndax nit dina def loolu kon lettre bu ñu la bind jàng nga koy def yàlla daf ñoo bind lettre mu adressé ñu ko mu ngi nii Muhammad ñëw leeralal ñu lettre bi jàngal ñu ko ba mu leer nañ daal dem ba pare na bàyyi naa fi ku ci jàpp rek rëcc kon loolu mooy ngëneelu alquran waaye loolu mooy ngëneelu sunna yonent bi sunna moo ñëw di leeral alquran moo tax alquran kese du dem sunna kese du dem ñoom ñaar ñooy ànd bi yàlla ne julli leen ndax li mu ràkka yi mu ngi ci alquran adadu salawatul xams hal mawjud fi alquran salatu subhi rakaatan mawjud fi alquran salatu zuri arba rakaat mawjud mu ngoog bi yàlla ne julli leen yonent bi moo ñëw di ñu wax waxtu yi di ñu wax waaye rakka yi ñaata la waaye di ñu wax encore kayfiya bi naka lañ koy defee naka noonu koor bi yàlla ne woor leen yeneen bi moo ñëw di ñu wax nu nuy wooree fu ñuy tàmbali fu ñuy yem aj bi yàlla ne aji leen yeneen bi moo ñëw di ñu wax encore nu ñuy ajee fu ñuy tàmbalee lu ñuy def loolu mooy sunna noonu lañ koy jàppee ci takk sëy ci nit ku faatu ci ku ñuy donn saa yàlla waxee def leen la mu ca leeral mu leeral ko ci leneen li sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw leeralal ñu ko mbokk yi ñetteel mooy wujub al iqtida bir rasul wa ahlil ilmi wassalaahi min haadihi l umma dafa war a leer ne dañoo war a roy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak borom xam-xam yu baax yi ci xeet wii wujub mu ne lu war la lan moo war dama ci ginnaaw al iqtida mooy roy toppandoo xeeñtu bir rasul ci yonent jullit foo nekk li nga war a def mooy jéem a roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam foo mën a nekk nag li nga war a def mooy nga jéem a roy yonent bi ak foo mën a nekk ak loo mën a def jéemal nga roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon incha allah ñu xaar tuuti ñu xool ndax yaakaar na mel ni mbokk yi dañoo ñëw incha allah li leen mbokk bi waxoon léegi ndax tey xam ngeen ne dañoo am fi programme bu rëy a rëy te mooy lii nekk fi suñu kanam waaw incha allah kon waaw su ngeen ci toll rek ngeen wooñu kon ñu nekk ci ba ñu wooñu su ko defee foo mën a nekk yow jullit jéemal nga roy yonent bi jéemal nga toppandoo yonent bi est ce que xam ngeen ne roy yonent bi farata la wala ah roy yonent bi farata la wala sunna la farata la xoola tey ñiy toppandoo Michael Jackson ñii di toppandoo Bob Marley da ngay gis benn sénégalais mu am lan ah mu dërëj bopp bi sol lan ay yére vert jaune rouge wala wala soo ko ne yow koy toppandoo mu ne la Marley nga dem noonu beneen waaye di toppandoo Michael nga dem am kuy toppandoo Balla Gaye am kuy toppandoo am na benn mbër bu fi bëri woon xaw ma ñu dóor ko tëf xaw ma fan moo toj ci yaram bi mu mu def ci bande ah mu kole ko nit ñëpp xëy suba taf ay kol seen këram nga gis sax paa bu taf kol fii paa laa wax de bu taf kol ndax lan bëgg am ma seen waaw yéen ñooñu ñu bëgg ñëpp ak yonent bi kan moo ci war a raw buñ ñu amee fit di toppandoo ñooñu Seydina Muhammad nag allahu akbar te kat toppandoo yonent bi ndigal lañ ci jot roy ko roy ko ndigal lañ ci jot ndigal ba ndigal lañ jot ci roy yonent bi yàlla moo ne ñu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi loolu alxuraan la wala du alxuraan gis naa fi benn doomu kilifa boo xam ne dafa taxaw def conférence daan na yonent bi du modèle yéen ñëpp gis ngeen ko seetaan ngeen ko genn wàll gi ci yéen yàlla ne yonent bi modèle la na ngeen ko toppandoo ndax mooy ki mat lépp lu ngeen di def xool leen ko ci moom lépp lu ngeen def xool leen ko ci yonent yonent bi yàlla def ko préparé pour ñu mun ko toppandoo ci lépp gis nga même yeneen yonent yi am na loo xam ne mënuñu ko toppandoo ci ñoom ñu baax lañ nag waaye am na yoo xam ne mënuñu ko toppandoo ci ñoom soo leen jëlee kenn par kenn da ngay fekk yonent bi moom lépp lañ ko mën a roy alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi nu ànd sant suñ borom subhanahu wa taala ci xéewal yu ñuy may ñu koy màng guddi ak bëccëg te mooy fas yéene dund ba dee nekk ci service am ñeenteelu tomb ci sunu darsu tey mooy xurmatul axzil ujra ala tabliigi daawa al islaamiya araam na ci képp ku nekk di jottali kàddu yàlla araam na ci yow ñu lay fay loolu dafa war a leer ci ñun jullit bu yëngatu ci diine di yëngatu ci kawel kàddu yàlla di woote ci islaam kenn du la fay moo tax da ngay dégg yonent yi naan ñun de mbir mi laaju ñu leen ci fay waaw ndax kuy liggéeyal yàlla fayu yàlla moo gën fayu nit juróomeel mooy alquranul karim zikra li kulli man yaqra'ahu aw yasma'u ilayhi wa huwa shahid xaadirul qalb téere bi ñu tiim muy kàddu yàlla di alquran day fàttali zikra li kulli man yaqra'ah day fàttali képp ku ko tiim di ko jàng gaa yi nee nañ ku bëgg a wax ak yàlla jullil ku bëgg yàlla wax ak yow jàngal quran ku bëgg a wax ak yàlla jullil ku bëgg yàlla wax ak yow nooy def jàngal alquran kon alquran fàttali la ci képp ku koy jàng képp koo xam ne yaa ngi koy jàng waaye yaa ngi def yaa ngi teewal sa xol yaa ngi teewal sa xel yaa ngi ànd ak dal sakina alquran del na la fàttali waaye bu dee nag li am léegi ci jamono mooy jàng ngir wàcce kaamil GIE groupe kaamil su boobaa léegi musiba mooy am kon incha allah mbokk yi ñeenti aaya yooyu wala xaw ma ñetti aaya yooyu di aaya 88 89 90 moom laay bàyyi léegi incha allah cheikh bi daal ñu koy jàngal ñu xool lan lañ ci sunu borom subhanahu wa taala dénk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين jazakumullahu xeyran na yàlla fayal ñu la yow mbokk yi sunu boroom subhanahu wa taala dañul ba tey di ñu orienté di wax moom yàlla lu mu defal jaamam yi ci ay yiw ak ay xéewal mu ne zalika hudallah lii day mooy njubal yàlla yahdi bihi man yasha moom yàlla moo ci mooy ciy jubal ku ko neex lii mooy njubal yàlla lii ñu tim di ko jàng lii ñuy jàng at yi yëpp weer yi yëpp lii di alquran mooy njubalum yàlla yahdi bihi man yasha alhuda mu ne diddu dolal njub lan mooy contraire am mooy réer wa hudallah maa yahdi bihi ilayhi man ahabba njubal yàlla mooy li yàlla yor di ko jubal ku ko ci neex ku ko soob ci jaamam yi moo tax mu ne yahdi bihi man yasha ay yàlla kum ci jubal rek mooy ku góorgóorlu léeg-léeg nga dégg benn doomu aadama bu dul julli bu dul jaamu yàlla suñ ko waxee mu ne neexul yàlla su neexoon yàlla ma def ko est-ce que jéem ngaa jóg bi nga déggee fajar ñu nodd est-ce que jéem ngaa jóg est-ce que jéem ngaa woor da nga jéem sunu borom nee na ku jéem rek ma jàppale la wallazina jahadu fiina baat baa ngoog la nahdiyannahum képp ku jéem jaar ci yoonu yàlla rek yàlla jàppale la waaw saa yoo jéemee lambatu njubal yàlla jaar ci yoonu yàlla sunu borom subhanahu wa taala dina la boole ci ñooñu ñoo nga xam ne ñoo ko neex mu daal lay teg ci yoon wi ay kenn dem tëdd di nelaw di yaakaar xaalis wala kan ci ñun moo yaakaar salaire boo xam ne da ngay nelaw ba yeewu rek nga dem ñu tàllal loxo ñu jox la ko kon nag jaamu yàlla tamit noonu la sunu borom subhanahu wa taala nee na zalika hudallah yahdi bihi man yasha li mooy njubal yàlla jàppale lañu ci xale yooyu yahdi bihi man yashaa'u min ibaadi moom yàlla moo ci mooy jubal ku ko neex ci jaamam yi sunu borom nee na walaw ashraku la xabita anhum ma kaanu yamaluun gis nga jaam yi jaam yu baax yi ma tànn jubal leen kenn ku nekk ci ñoom ginnaaw bala yàlla tànnee baaxal la soo bokkaalee rek sa jëf yëpp yàqu li leer na de allahu akbar jaam yi yàlla tànn baaxal leen mu ne walaw ashraku cëy sunu bokkaale woon luy xew mu ne la habita anhum ma kaanu yamalun kon de dana sippeeku dana yàqu dana màbb lépp loo xam ne ñoom ñu ngi ko doon def ci jëf ju baax kon bokkaale baaxul wax nañ ci sànq joxe nañ ci ay misaal pot ndaalu soow bu sedd guy ñu tëmbal ci ay doomu raisin dagg ci ay banaana daggat ci pomme daggat ci daggat ci mu sedd guy ba waar ja glacé ñu jox la ko ne la naanal fekk yaa ngi woor ba ngoon nga dem bay naan rek sa doom ñëw toqal ci deret benn toq deret nooy def potu soow boobu da nga koy naan sa doom sax laa wax mais bu keneen jóge fële rek daa ciy def benn danku deret nag benn asu deret ne ko ci pas ci biir nooy def soow moomu da nga koy këpp loolu mooy bokkaale bokkaale baaxul dafay yàq jëf jëf ji li muy bëri bëri bëri bëri jëf ji li muy baax baax baax soo ko raxee ak bokkaale jëf ja yàqu na sunu borom moo ko wax walaw ashraku cay ñii sama jaam yi nga xam ne maa leen tànn maa leen baaxal suñ ma bokkaalee seen jëf yëpp la xabita dana yàqu anhum ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yaamalu na di ko def borom bi ne ulaika ñii alladina ñooy ñi nga xam ne aataynahum indil naa leen alkitaaba téere ba wal hukma ak xereñ taga alfahmu muy dégg allahu akbar ñii muy jaam ñi nga xam ne ñoom laa tànn ñuy sama jaam ñooy ñi nga xam ne indil naa leen téere ba waaye ma defal leen ci ak dégg moo tax duñu bokkaale ndax jàng nañ téere bi comprendre nañ ko xam nañ li yàlla wax xam nañ li yàlla bëgg xam nañ li yonent bi indi ci sunnaam alfahmu lil kitab ma al isaaba fi l umur wa sadaad fiha yàlla dimbali na leen ñooñu gaa yooyu comprendre nañ téere yàlla bi dégg nañ ko bu baax waaye mbir yi sax xam nañ fuñ koy teg lépp teg nañ ko ci yoon mbokk yi kon gis ngeen téere bi lu muy dimbali nit mooy téere bi doo fekk mukk ku ko dégg di bokkaale ku ko dégg laa wax de ku xam li tax téere bi jóg doo ko fekk mu muy takk gàllaaj takk béjjën waaw takk lan xaaw takk petaaw takk lam takk takk takk takk ci ndigg li ba mel ne sawaay firi boobu nga xam ne ay buuma koy wër ab julit du bokkaale ab julit na ko yàlla doy ab julit na ko téere yàlla doy ab julit na ko sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam doy sunu borom subhanahu wa taala nee na gaa yi maa leen indil téere bi dafal leen ci ak dégg mooy wal xukma waaye wan nubuwata man maan yàlla maa leen may sax ak yonent ñuy ñëpp nag li ñuy nekk ay yonent li ma leen di may xereñte li ma leen di déggloo téere bi ñoom ñëpp buñ ma bokkaalee seen jëf day yàqu ay téere bii fa in yakfuru biha haula ñii waa màkka buñ ko weddee ñii yow muhammad say niti jamono buñ ko weddee faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin danaa ko indil danaa ko dénk danaa ko déggloo ñeneen ñoo xam ne danañ ko comprendre bu baax mooy waa madinatul munawwar ba waa màkka weddee gars yi du ngeen ñu dimbali ci xale ngir yàlla du ngeen jóg ne leen ñu wàcc escalier yi yàlla bi mu yónnee yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam jox ko alxuraan waa màkka weddi ko ñan la yàlla tàggat pour ñu nangu téere bi waa midin waa Sénégal bi ñu ko bañee rek yàlla indi ñeneen loolu kese la fa in tatawallaw yastabdil xawma xawman xayrakum summa la takunu bu ngeen ko weddeer yàlla indi ñeneen islam noonu la soo weddeer yàlla indi sa morom waaw olof yi sax dañuy wax ne bu waa xaw ma waa mbul bañee waa làmbaay nangu loolu la ñuy wax bu waa mbul bañee rek waa làmbaay nangu téere yàlla bi saa yu ko ay nit weddee bañ koo jëfe yàlla tàggat na ay nit yoo xam ne dañ ko dund ku bañ rek sa morom nangu waaye ki am xel ki muus mooy ki nga xam ne moom dafa bokk ci ci ci ñi nangu fa in yakfuru biha haula sa nit ñi yow muhammad alayhi salatu wasalaam buñ ko weddee te mooy moo waa màkk ñu won téere bi ginnaaw yajhadu biha bi daawatik woo gi nga leen di woo gene leen ba ñu sànni téere bi fële muy waa màkk waaye kenn du ko tënk ci ñoom rek léeg-léeg dina bokk ci liy gàllankoor sunu njàngale ci diine ñu firi alquran bi aj ko ci waa màkk kese comme yenn tafsir yi yaa ayuha alladina amanu ñu ne yaa ahlul madina yaa ayuha alladina kafaru ñu ne ahla makka waa sénégal luñ ci am alladina amanu ñu ne misla aboubacar wa umar alladina kafaru ñu ne misla aba jaalin wa umaya léegi kon waa sénégal luñ am ci téere bi alquran yàlla dafa yónni yonent bi ci nit ñëpp wa ma arsalnaka illa kaafatan linnas kon alquran téere bi yëpp la ba pare téere bi téere universel la chaque jour la yàlla di wax ne téere bi téere addina la téere addina la du téere benn nit du téere waa Makka du téere waa Médine du téere waa du téere waa téere bi pour képp kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah téere bi moo war a nekk sa kanam téere bi war a nga war a teg sa loxo ndeyjoor ak sa loxo càmmoñ téere bi moo war a jiite sa pas-pas li téere bi wéral mooy li wér li téere bi dàq mooy li dàq keroog ba ñu alkoo mooy bañ defee téere bi téere barkeelu waaw am naa benn kaamil mu ngi sama kër boo xëyee rek da ngay raay daal di diw sa kanam kese nga ci xam ñeneen ñi nuñ koy def jël ko teg ko ci seen kaw armoire ñeneen ñi jël ko teg ko ci kaw seen bibliothèque ñeneen ñi jël ko teg ko seen oto am na ñoo xam ne sax dañuy gas seen digg kër ba mu xool dugal ci kaamil bi ndax ne kaamil bi day aar kër gi benn waaye nettali na ma nee na am na jumaa ju mag ci Sénégal jumaa ji dañoo jàpp benn kaamil xottate ko ba kaamil bi nekk ay feuilles feuilles ñu def ko ci fondement sooroor yi yëkkati jumaa ji am na kenn ku ma mës a nettali loolu benn jumaa ci jumaa yi nekk ci biir Sénégal nee na noonu lañ ko def biñ koy tabax sooroor bi ci gën a mag dañoo xottate ay feuilles alxuraan kaamil bi lañu xottate daal di koy teg ci suuf daal ciy teg tabax bi yëkkati ko loolu mooy wane ñun xamuñu alxuraan barke bi gis nga bu la yàlla yóbboo màkk nga ñëw fekk téere yi niñ ko tegee ci kaw nga jël téere di jàng léeg-léeg nga jàng ba nga sonn nga bëgg a julli nga ni na nga ko teg nii ci mokke di jóg la ilaha illallah su la naar yi yuuxoo comme ni nga def nii dañ lay yuuxu ba bëgg laa rey ne la lii kenn du ko teg suuf yëkkati ko ci kaw boo yéexee sax nga gis ku ko jël ndeysaan daal di koy fóon ne nii daal di koy teg ci dënn bi lu tax kalaamullah waxu yàlla la ndeysaan ñu ne kenn waru ko teg sax ci ci ci moket yi te pourtant ñun fii da ngay am sijaada bu wes tax nga jël téere bi teg ci nga jàng nga jël der teg ci jàkka jaa ngi nii boo jàngee nga teg parce que ñun loolu la ñu jàngal waaye ñee ma defe ne ñooñu kese la ñëw fii ñu am ay gan yu jóge Indonésie fii benn bis ñuy jàngandoo ak ñoom fii rek benn xale jël te kaamil teg ci su mais waa ji dafa dafa doon waa ji da doon rullewu ci moket yi ba capté kaamil bi ne kaamil kenn du ko teg ci suuf pourtant ñun dañ naan lii du suuf de lu tax mais ñenn ñu nekk ak nañu leen yaree ñenn ñu nekk ak nañ leen bëggloo téere yàlla bi ñenn ñu nekk ak leen leen jàngale seen diine ñun kaamil bi fii da ngay romb sawaay ku nekk nu la neex nga koy def waaw ku nekk nu la neex ngay def téere yàlla bi kon sunu borom subhanahu wa taala nee na yonent bi ñii bu ñu weddee téere bi faqad wakkalna biha qawman laysu biha bi kafirin indil naa ko jox naa ko dénk naa ko ay nit ñoo xam ne duñ ko weddi mukk ci àdduna allahu akbar ñooñu alquran bi mooy nekk seen dund alquran bi mooy nekk seen bëgg-bëgg gis ngeen xale bi demoon jàngi alquran concours bi ah ñaari xale yi jóge woon Sénégal dem jàngi alquran Sénégal yàgg nañoo bëgg coupe du monde football am ngeen ko coupe d'Afrique am ngeen ko ah yàlla indi leen coupe du monde alquran ngeen jël ko kan moo ko yëg xale xam ngeen kooku ne yaata la ko gouvernement bi jox ki jël coupe du monde alquran ah 600000 ñu jox deux ñu jël trois ñu jox troisième bi 400000 wallahi alazim su Wally Seck demoon États-Unis Donald Trump takkal ko médaille ah daal di koy jox benn coupe billahi dinañ ko teeru ji aéroport état bi dina ko teeru ji aéroport est-ce que xam ngeen ñu jox waa ji lu tax ñu jox booy bi 600000 xam ngeen lu tax lu tax ñu jox troisième bi xale bu jigéen bi 400000 est-ce que xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax parce que buñ ko joxee 50 millions dañuy encourager xale yi léegi ñu dem jàngi alxuraan buñ buñ buñ ko joxee may ko kër jox ko oto waaye yal na yàlla fay sëñ Saaliw que noonu la de sëñ alxalifa ama bu murid yi sëñ Sidi Muxtaar jox ko tablette iPad bu am or jox ko bie mag voilà tey ji état bi bu ci bu ci defoon bu mayoon bu leen mayoon ku nekk kër may leen ku nekk oto jox leen ku nekk 50 millions kon suba nga dégg nit ñëpp dem jàngi alxuraan loolu la ñuy bañ moom la ñuy bañ moo la ñu daal di koy minimiser 1 million lañ leen séddale ñoom ñaar 1 million. wallahi mbokk yi kooku jaroon nañu may ko kër gu toll ne estar ñaar ñooñu ku nekk jaroon na tey ñu may la VDN terrain jox la 4-4 lan la waa ji mokkal kitaabullah téere yàlla waaw moo tax alquran day yëkkati nit alquran day yëkkati nit kenn du mokkal alquran nekk ci suuf abadan mos nañu am benn ganu naar bi ñuy jàng alquran nekk ay xale naar bi danaan bëccëg di jaay ay effet de toilette di ñëw sunu daara xaritoog sam papa sunu sëriñ bu ñëwee góor gi daf koy jox xalqa naar bi da doon jaay si de mais dafa bëgg alxuraan ba bu ñëwee dañ koy jox benn groupe diw ak diw ak diw dem leen naar bi jàngal leen dafa bëgg alxuraan nag cey boo yàqee boo yàqee xarf foo toll ci biir daara ji même boo nekkoon 3 mètres da la yuux am na sama benn rakk bu jigéen bu topp ci man ci moom la mokkale alxuraan naar boobu ci événement naar yi fii la ko fekk Sénégal ndax dafi daan nekk su jaayee ba nawet bi jot wala mu daal di ñibbi Mauritanie yàlla natt ko événement naar yi fekk ko fi mooy jamono boobu gars yi di rey Sénégalais yi fële ñii di rey fii naar yi ñun daal ñu jékki ba timis rek mu yuuxu daw ñëw fëgg sunu buntu kër ñu ubbi muy moom moo ngi yor kaamilu alquran mais kaamil bi dañ koo dajji dañoo dindi kaamil bi bàyyi ko protège yi sam papa ne ko foo nekkoon mu ne Pikine lan la mu ne dañ ma doon dóor nit ñi ma doon dóor ma rëcc ma daw ñëw fii mais mi ngi wax laa ilaha illa allah moo ngi wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah ñu daal di koy jël wax sama papa suñu kër amoon na benn ruq ñu defar ruq bi ci ginnaaw kër gi la nekk ñu dugal ko foofu ñu ne ba bët set ñu yóbbu ko caminteer yi suñu dëkkandoo yi am ñu ñëw nañu li ngeen def dafa dangereux bu ngeen ko dencee fii nit ñi waa population bi song leen guddi fii dañ koy rey rey leen wala ñu gaañ ko gaañ leen fexe leen ngeen yóbbu ko ci guddi ga camp ba te boobu xam nga xam ngeen ne boobu dañoo defoon couvre-feu état d'urgence dafa am heure boo xamante ne dañoo tere woon ku génn. sama papa xool ko ba ci àgg mu daan may xool ne ma kii xam nga lu ko sauvé ma ni sama papa xaw ma lu ko sauvé de mu ne ma kii alquran moo ko sauvé sama papa ne ma Saïd kii alquran moo ko sauvé kii xaafisu quran la gis nga nu mu doon jàngee alquran kii alquran moo ko sauvé gis nga mbokkam yi mu nekkoon ñëpp rey nañ leen ñu daal di koy jël ci guddi gi luwee taxi dugal ko ci ñu yóbbu ko kancaaro yi ci guddi gi ma ak sama pap ñu dem dajeek benn colonel ñu jox ko ko militaire mu ne daf koy yóbbu foire allahu alam yóbbu na ko foire yàllaa xam yóbbu na ko wala yóbbu ko keroog lañ ko gëj a gis ba tey xaw ma yóbbu na ko xamuñu ndax yóbbu na ko waaye keroog lañ ko gëj a teg bët tey ñëwaatul ci daara ji ba ñun ñëpp ñu génn almuhim li am importance mooy naka la jullit tiimee jullit di ko rey muy wax la ilaha illallah nga naan naar la rey leen ko naka la jullit tiimee mbokk jullitam di ko rey di wax laa ilaha illallah nga naan rey leen ko sunu borom subhanahu wa taala mu ne su gaa yi weddee alquran muy waa màkk ak ñu mel ni ñoom yow muhammad alayhi salaatu wasalaam danaa la indil ñeneen ñoo xam ne lay suubiha bi kaafirin ñoom duñ ko weddi mukk yàlla ñu ne ñi nga xam ne duñu weddi alquran ñoo def alquran seen kanam seen ndeyjoor seen càmmoñ seen ginnaaw ñii ñooy naan ci teen bi di alquran ulaayika ñii allazina ñooy ñi nga xam ne hadallah ñoom la yàlla jubal keneen jubul ku dul ñii kon ku bëgg a jub mbokk yi jàppal ci alquran yonent bi wax na ko de ku ko bàyyi rek réer yonent bi wax na ko ku bàyyi téere bi rek réer taraktu fiikum ma in tamassaktum lan tadillu baadi bàyyi naa fi loo xam ne sama ginnaaw ku ci jàpp doo réer loolu lan la mu ne kitaab allah jeex na ñoo ngi nii bokk na ci li ñu tere jaamu yàlla ñëpp ci ñun mooy ku ñu ramm yowmal qiyaam ku ñu ramm da ngay dégg benn waay ne man maay ramm maay ramm yowmal qiyaam ñoom diw maa leen di ramm loolu bokk na tey ci li ñu tere jaamu yàlla parce que jàpp nga ne yowmal xiyaam am nga ku lay ramm alxuraan a ngi nii day ramm yowmal xiyaam wa kunna nasfa natma man yashfa lana yowmal qiyaama wa haza kitaabullahi yashfa lana yonent bi nee na alxuraan day ñëw yowmal qiyaam daa di jàpp ci loxo nit daa di ñëw ci kanam yàlla ne yàlla tin ma ci kii maa ko tere woon nelaw maa ko tere woon liggéey maa ko tere woon def lépp man dong la doon jàng yàlla tin ma ci moom mu dugg aljanna iqra al quran fa innahu yaati yawma alqiyama shafian li ashaabi yonent bi ne jàng leen alquran ëllëg alquran day ñëw yawma alqiyama di ramm ay ay nitam yi ko doon jàng tey xoolal nit ñu naxee nga gis ay nit yoo xam ne dañ dañuy xëy jàng ay téere téere boo xam ne boo rombee waa ji di ko jàng day concentré boo woo ko ne asalaamaaleykum du la faale nee na téere boobu moom moo ëpp barke alxuraan maa ngi ak sama whatsapp fii sama whatsapp portable benn waay bu ne muy tëkkale muy tëkkale alxuraan de mu ne alxuraan ni mu gëne silabeer silabeer da xam ngeen silabeer nee na ni ko alxuraan gëne moom téere boobu muy jàng noonu la gënee alxuraan est-ce que jullit dina tëkkale alxuraan ak silabeer yenn saa yi nga dégg ñu ne alxuraan rakkal la alxuraan rakkal la sëñ bi nal na ko waaw diw gi yóbbu na ko rakkal gi la fi bàyyi te li li li li li li li indi njaaxle ci loolu mooy kuy julli rakkal bi ngay jàng lu tax duñ jël diw gi jullee ko gars yi lu tax duñ jullee diw gi bu ñuy julli la rakkal bi la ñuy jàngee diwlin fan lay génn ci rakkal ci gerte après bu génnee ci gerte la fay des bu diwlin bi génnee la fay des la ñuy def man nañu def rakkal léegi alxuraan bu ñu ko defee noonu ñu jàpp ko dëbb ko ba diw bi génn ñu yóbbu diw gi bàyyi fi rakkal gi lu tax bu ñuy julli duñ jël diw gi loolu la war nañ koo laaj nit ñi waaw ndeysaan gis ngeen Sénégal alxuraan nuñ koy nuñ koy nuñ koy nuñ ko tumarankalee wallahi fecckat yi théâtre kat yi suñ demoon Europe wala ñu dem États-Unis ñu jël champion du monde théâtre wala ñu jël champion coupe d'Afrique théâtre wala suñu footballeur yi dem indi champion du monde football wala coupe d'Afrique lan lañ leen di jox balaa ñuy dem sax lañ leen di jox ñii di jàng alxuraan bu ñuy dem kenn du ko yëg ñooy paasal seen bopp volontaire u ndeysaan seen i way jur seen i directeur yi école ñoo leen di paasal dem leen parce que wóolu nañ leen jàng nañ xale yi dem ba jàng xoolal addina bi addina bi ñaata pays la addina bi ñaata pays la xale bi jël pee ci Sénégal yëkkati turu Sénégal nga xam ne bi muy tari drapeau am lañ teg binduñu turam drapeau Sénégal loolu kay dëgg-dëgg jaroon na président de la république xaari ko aéroport jaroon na premier ministre xaari ko aéroport jaroon na président assemblée nationale xaari leen aéroport jaroon na xalif général yëpp génn seen biir kër yi ñëw aéroport teeru xale yooyu jaroon na ko mais bi ñuy ñëw kenn yëgu ko man bi ñuy ñëw benn waay moo nekk Angleterre moo ma yónnee message bi xoolal ku nekk Angleterre moo ko njëkk a yëg ñu nekk Sénégal mu ne ma xale yooyu dégg naa tey la ñuy ñëw 4 heures man message bi maa ngi ko recevoir fekk aw ma woon internet comme ci biir dëkk bi laa nekkoon bi ma ñëwee sama kër sama portable ma xool rek gis ñu envoyé ma message bi fekk xale yi ñëw nañ mais lan mooy mbetteel lan lañ leen terale ah ah lan lañ leen terale un million lañ leen séddale ñoom ñaar un million un million bu doon caaxaankat yi la zaaru waali sekk yeeg ñu demee noonu fecckat yeeg taaxuraankat yeeg rappeur yeeg mbër yeeg dëbbkatu linjaag dóorkatu martu yi bu doon ñoom la cëm ay milliards lañ leen di jox ay terrain ay kër ay air plus nangam léegi nga gis fi benn fàqmaan bu ñëw ne maa leen may oto bii ñaata yoon lañ fi may mbër oto lu mu def ñaata yoon ngeen dégg fi Wally Seck président président la république recevoir na ko lan la def bu président di ko recevoir lan la liggéey leen réew mi te xale boobu tey ci âge bi mu toll buñ ko yóbboon mu dem jàng bu ñëwaatee ban dëkk mooy jëriñu ñan ñooy jëriñu kooku tey waxuma la sax âge bi mais instant yi mu toll nii buñ ko ubbiloon internat jox ko doomu jullit ne ko jàngal leen ku jigéen ki ñu jox ko jigéen ñi man dama wax sama benn xarit ma ne ñaar ñi bu ma nekkoon bu ma bu ma amoon ci ñoom ñaar autorité dama leen di maye ñu sëy waaw kii jàngal jigéen ñi kii jàngal góor ñi jeex na tey jii seeni parents mënoon lañ leen maye ñoom ñaar ñu sëy waaw bu ñu amee moyen yóbbu leen ñu jànge bu ñu amul ay moyen ñu yóbbu leen internat góor ak jigéen kii gérer góor ñi kii gérer jigéen ñi ñaar ñi mokkal alxuraan dem ba xam adduna bi yëpp xam ne ñaar ñi ñoo fi raw ñooñu kay ku leen jox seen doom kuñ jàngal nga raw wala tey bu ñu amoon benn jour international bu retraité ñëw Sénégal ubbi école football yéen ñu bëgg seen doom nekk ay footballeur fu ngeen leen di yóbbu wuy leen ma ana ñu bëgg seen doom yi nekk fi ay footballeur foofu la leen di yóbbu ñu bëgg yi tamit seen doom yi ñu mokkal alxuraan yóbbu leen foofu gis nga li moo tax téere yàlla bi kenn mënu koo xeex UNICEF ñëw na fi ak yeneen organisation di xeex alxuraan di jéem a tilimal deru daara di jéem a indi indi indi mais terewul julli ñi dañuy jàng alxuraan kenn mënul tere julli ñi jàng alxuraan kenn mënu ko waaw loolu gaa yi wax dañuy jàng alxuraan ba géej gi di di di di ŋeer boobu UNICEF ñëwee fii di xeex daara ba léegi ñaata xale ñoo wàcc alxuraan daara dafa gën a bëri jigéen ñi di mokkal góor ñi mokkal partout démb xoolal naa fi la xale bi jiite fii ci daara bi lay jàngee xale boobu papaam da doon xeex ak magam magam daal di koy dóor barre de fer ci ginnaaw paa bi gumba bi mu amee doom mu ne wallahi sama doom bi day mokkal alxuraan mu indi ko fi dé barke démb la démb ci guddi xale bi moo jiite fii wala loolu xale bu ndaw di jiite toll ci ay 9 ans 10 ans 11 ans ah allahu akbar benn benn séeréer moto da koo romb moto deux roues scooter vrrr xaw ma jakarta vrrr mu xool ko ba ci yàgg mu ne ah kii de bu màggee dina def musiba ah déggu leen wax bi de jakarta moo ko romb ndax ni muy dawee aliir yi mu ne jakarta bu màggee musiba lay def ndax day naaw ndax daw yi muy daw pour moom dafa war a ngande waaye xale bi tamit bu màggee xale bu ndaw 9 ans mokkal alquran 10 ans ah 11 ans mokkal quran kooku tey buñ ko jàngalee jàngal formé ko mu daal di jàngaat yeneen xam-xam bi boole ci luy xew njëriñ lay amal réew mi moo tax jàng leen de jàng leen bu baax bu leen keneen tere jàng njëriñ bi mu ngi ci téere yàlla bi tabaraka wa taala nekkul feneen bu yeboo ngeen matt ko ak seen i dëgëj ngeen jàng képp ku sa baay dugal daara bu yeboo nga xam ne sa baay bëgg na la mais gis nga dañu daan théâtre fi di diaboliser daara ah jàng ngeen fi benn théâtre bu tudd ndongo Ceerno la ñu yóbboon mu jàng waaw ndongo daara am na sax ay way yuñ ci way di saboté daara kon nag yàlla mooy atte rek bis bu nekk yàlla moo ñuy atte ak ñii te du deñ di atte insha allah ila an yarisallah ard wa man alayha mu ngoog ulaika alladina hada allah ñooñu la yàlla jubal yow boo buggee jub fa bi hudahum iqtadi xoolal ñooñu seen njub nga jub ci gars yi suñu buggee jub yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la jubale aboubacar aboubacar lan lañ ko jàngal ba mu jub umar lan lañ ko jàngal ba mu jub ousmane ali bilal ammar musab ñooñu ñëpp lan la leen yonent bi jàngal ba mu jub alquran kon boo bëggee jub mu ne ulaayika allazina hadallah ñii laa jubal yàlla wan ko yonent bi tànn yonent yi ibrahim moussa isa suleyman ayub zakariya ñu doon wax démb seen tur yàlla ne ko ulaayika allazina hadallah ñii laa jubal soo bëggee jub fa bi hudahum iqtadi toppandoo leen rek ci fañ jaaroon nga jaar jeex na ku bëgg a jub xam nga fi ngay jubee ndax yàlla dafa def ay modèle yonent yi teg ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko gaa yu baax yaa ngi nii boo bëggee baax toppal seen yoon ku bëgg a baax jaaral ci yoonu yonent bi rek léegi nga baax yonent bi amul sahaaba bu mu jàngal bu jàdd am na ko kan la su fekkoon ne dagan naa wax ki gën a yamamaay ci sahaaba yi ci jikko ak ci yar suñ ko indi woon tey ci adduna bi moo gën waa adduna loolu sax lu leen koy wan mooy xool leen suñu sëriñ si fii suñu xalifa général yi ak seen i wayjur ñooñu lan lañ leen jàngale tey su ma leen doon laaj Cheikh Ahmadou Bamba lan lañ ko jàngal ba mu mel ni mel ban ban ban université la génne ban école primaire la jaar ban CM la jaar ban lycée la jaar ah ban université la génne université Seydina Muhammad jëlal El Hadj Malick jëlal El Hadj Omar Fouti jëlal Abdul Qadir jëlal Souleymane Baal jëlal almaami Abdul Qadir Kan jëlal Xaadima Jaxate Kala ñooñ ñëpp fan lañ génnee ci alquranul karim Sénégal mënatul am ñu mel ne ñooñu léegi lan ngeen di am ay mbër ay simbkat ay càkkaaba ay buubu golo wala ngeen fi am ay waali ñu ne ngeen fi am waaw jànn tàkk lu tax parce que ñee lee moo leen baaxaloon alquran day baaxal nit nit du jàng alquran gëm ko di ko dund yàqu jamais torox mukk ku jàng ku alquran téere yàlla bi ku ko gëm doo torox jamais doo tedd di mukk foo nekk yàlla da lay teral waaw ndeysaan benn benn sëriñ daara bu doy waar moom tamit dafa mokkal alxuraan di jàngale waaye mu takk jabar ju ko mën jabar jee ko mën te daa bëgg jabar ji bu amee problème ak jabar ji rek jabar ji da koy rëkk mu ne ko yaa ngi dóor alxuraan yaa ngi dóor alxuraan de yaa ngi dóor alxuraan gis nga allahu akbar yenent bi nee na waa alxuraan ñooy ahlullah fil ard ahlullah fil ard ñooy ñooñu yàlla ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi jàng alquran ëllëg yowmal qiyaam da ngay jàng di jàng rek ba dernière aaya boo mën ñu ne la taxawal fii mu ne moo tax di nga gis benn waaye bu nekk këram comme biddéew yi ni nga nekkee fii di seen biddéew yi li nga gis ku toll noonu di la seen comme ni ngay séenee biddéew yi waa jooju loolu la lay rawee lan la ko amee mooy ci alxuraan la ko amee kon gars yi ku bëgg baax alxuraan a ngi noonu ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi cheikh ousaymin wax na ci aaya bi doon ko firi mu ne yàlla waxul ci aaya bi nañu topp gaa yooyu waaye lan la wax seen njub la ñuy topp ulaika allazina hada allah ñii laa jubal fa bi hudahum iqtadi waxu ko iqtadi waxu ko iqtadi bi haula lan la ko wax fa bi hudahum iqtadi la leen jubal ba ñu baax toppal loolu yow la aboubacar toppoon ba baax toppal loolu la omar toppoon ba baax toppal loolu la ousmane toppoon bu baax toppal loolu la yonent ya toppoon bu baax ñoom suleyman ñoom moussa ñoom isa ñoom nuux ñoom ibrahim lañ toppoon ba baax toppal loolu yow jullit bi bëgg a baax waaye boo fi bëggee baax topp ay sabar topp ay ndënd fecc guddi tux yamba jaxase sa bopp kenn xamul looy nuru ah di fecc suñ waxee nga naan fecc ma damay dukkat loolu mooy lan fan lañ wax ci alquran dukkat leen ana aaya bi ñu leen ñu dukkat ana aaya bi am na aaya ah du ngeen muwin kaay leen ñu dukkat am na ci aaya alquran gëm yàlla nañ leen delluwaat ndaw yi bu ñu leen bëggee defar nañ leen yóbbu ci quran nan leen nampatal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam nampaloon nampataloon yonent yooyu keroog ba alxuraan di wàcc lan la fekk saxaaba yi ci lan lañ nekkoon daan naan sàngara daan njaaloo daan def yu bon daan am ay doom di leen suul daan reyante waaye keroog ba alxuraan ñëwee yàlla génne leen ci sàmm ay gëléem waaye jiite ay peuple ndeysaan téere baa ngoog mbaaxu yàlla ngoog ci la ko yàlla def qul waxal yow muhammad laa as'alukum alayhi ajra diine yàlla ji ma leen di woo ak di leen ko jàngal laaju ma leen ci fay waaw loolu tey da ngay gis ndeysaan ci sunu conférencier yi kilifa goo xam ne def conférence gars yi ne ko waaw dañoo ñëw ci weeru koor gi pour nga defal ñu conférence mu ne da ngeen may fay dem leen ci sama ménagère léegi oustaz yi dañoo am ay ménagère quoi waaw dem leen ci sama ah su ngeen demee waa ji ne leen waaw ñaata la du ngeen di joxe am na ci ñoo xam ne sax dañ lay wax ne da ngay jënd mbubu da nga koy jëndal mbubu mbax ne ak ay dàll waaw ak fay bi allahu akbar yonent bi ne keroog ba mu taxawee ci jabal Makk di di woote islaam kenn jëndalu ko woon ay dàll kenn jox ko woon garaam mbubu ah kenn jox ko woon kaala kenn jox ko woon mbax ne diine yàlla bi kenn waru cee laaj fay buñ la joxee nag nga jël waaye bul laaj temps lañ may fay tey li garaaw mooy am na imaam yoo xam dañ leen di fay am na benn imaam daa jiite jiite jiite jiite ba conseil jot mu jël conseil mu ñëw ci jàkka ji gaa yi ne ko kaay jiite mu ne damaa jël conseil am na ci àddina bi dëkk yoo xam ne imaam yi dañ leen di fay bu weer dee imaam bi day jël conseil di noppalu ji imaam bi dugg ci jàkka ji ñu ne ko kaay jiite mu ne damaa jël conseil xanaa da ngeen fàtte ne damaa jël conseil allahu akbar waaw ndeysaan diina yàlla bi léegi ay fay la quoi am na yoo xam ne pour ñu noddu sax dañ leen di fay lan mooy sama salaire diina yàlla amul fay yonent yi nee nañ lii ñu leen di jàngal laaj yu ñu leen ci fay loolu la nuux waxoon loolu la ibrahima waxoon loolu la moussa waxoon loolu la isa wax tey jii téere bii ñu tiim muy téere sayduna muhammad loolu la wax qul waxal yow muhammad laa asalukum alayhi ajra laajuma leen ci fay sànq waxoon naa leen alquran téere universel moo ngi ni in huwa illa zikra in huwa illa zikra lil alamin téere bi dafa ñëw nekk téere universel moo tax dañuy wax mondialisation téere bi téere mondial la imam màkk lu muy jàng buy jiite ah imam France imam Amérique imam Géejawaay imam Caaroy ah waaw te ndeysaan imam ba nekk Màkka bu ñëwoon fii tey jiite su juumee rek booy yi gàggante ko wala mu ngoog benn téere la lépp a yem lépp a nuroo lépp benn la mu ngoog loolu mooy wan ne universel la foo dem su dul li jotee ñu ne la bismillah ñemoo faa jàngalee na dul alxuraan wala ñemewoo ko foo dem nag ci àdduna bi ñemewoo dem ñu jiital la nga jàng leneen dul alxuraan waaw benn waay bu tudd Moustapha Kamal Atatürk moom moo tas xilaafa l'islam turc bi mu ñëwee li mu njëkk a def muuri jigéen ñi nag fii kenn du fi muuru mu ne alxuraan kenn du ko jàng ci arab kenn dootul noddu sax ci arab comme julli jot ñu naan allahu akbaru déedéet da ngay taxaw di wax bu fekkee tukulóor nga allah ko mawdo yàlla ku màgg la yàlla ku màgg la ñoo ngi seede ne yàlla kenn la muhammad yàllaa ko yónni ñuy nodde noonu comme ça ci langue turque mais tey yàlla dindi na loolu day dañ rek ay nit dañuy ñëw di xeex diina ji waaye yàgg-yàgg rek diina ji mooy féete kaw lu tax ndax yàlla moo ko yor islaam nekkul ci loxo yi nit bu doon ci loxo yi nit fay na bu yàgg ñun ba ñu juddoo ba léegi dañoo fekk ñuy xeex diine te balaa ñuy judd ñu ngi xeex diine te diine jaa ngi fi kon ku nar a texe ëllëg ku yàlla war a may ndam mooy ku ànd ak alquran ba ëllëg yowmal xiyaam mbokk julli di loolu mooy sunu darsa tey ñoo ngi jéggulu njuumte yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.